baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp seen émission xalima bu ñëw def dénagement def déplacement ñëw fii ci Parcelles Assainies plus particulièrement unité 15 seet si fi borom xam-xam boo xam ne kenn dootu ci réew mi muy docteur Cheikh Ousmane Mbow mu ngi fii ci Parcelles Assainies unité 15 seen émission xalima bu ñëw ñëw fii seet si ko fu seen i waxtaan ak mooma tolluwaayu réew mi surtout ak li nga xamante ni yàlla jagleel na ko ko mu fas yéene ci dimbali jaamu yàlla yi fii ci biir sunugal 24 point net bépp internet boo xamante ne nii intéressé wu nga ci bi te point yi ñu fi développé yëpp mu dal la wala mu dal sa mbokk wala mu dal kenn koo xamante ni xam nga ko du ma lebal ñëwul fii ci Parcelles Assainies unité 15 ci dépôt gaz bi seet si Cheikh Ousmane boobu ñu bàyyi ko rek mu nuyoog waa réew mi ci àdduna wërngal këpp ci biir sunugal 24 point net sëñ waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu maa ngi nuyu suñu gaal 24 yëpp di nuyu réew mi yëpp kilifa diine yi ak kilifa aada yëpp di nuyu àddina bi yëpp di nuyu umal islaam yëpp di la waa bitim réew mu mel ni li tax na li tax boo xamante ni dans le monde entier ñëpp la seen mboom di liggéeyal. Mhm. waaw loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndax yàlla bu la mayee yenn yi. boo ko santee rek mu dolli la la in shakartum la azidanakum la wax bu ngeen ma santee rek ma dolli leen bitim réew eh, dama am yërmande bu rëy ci moodu moodi yi looloo tax eh, daanaka li ëpp si ñi may jëflante sax ñooñu la te li ko waral du dara la du ñeewante bi ma am ci moom ak yërmande bi ma am si ñoom waa diaspora bi moo tax maa ngi leen nuyu di nuyu ñi may jëflante yëpp di sant yàlla yi ci ndimbali yi nga xam ne résultat yi ñu fay yàlla may loolu tamit ñu ngi ciy sant yàlla euh, di la wax bismillah lépp loo bëgg rek ñu waxtaan ci ci bitim réew incha allah bu ñu ko temps bi ñu waxtaan ci. gis nañ dund bi ñu fay mm-hmm. mm-hmm. réew ñu tàggale sa wajur wu góor wala wu jigéen léeg-léeg sax nga am fi soxna. Mm-hmm. bëgg a ñëw ay problème papier téye la. tey ku jokkoo yow di ko ci mën a waaw. daanaka fi ne ni ñoom ñi nga xam ne ñoom laay jëflante yàlla may leen kayit ñoom ñoo ñooy gën a publicité sama mbir ñoo may gën a boole ak ay nit moo tax léeg-léeg sax ma gëj ci média bi waaye bitim réew xam nga dafa am eh, jam dafa am ñetti temps yu am dafa am jamono bu yàgg boo xam ne tukki dafa yomboon am kayit dafa yomboon ndax nasaraan ci muy tubaab yi seen réew mi liggéey bi ñu ko doon liggéey ñoom mi neen mënuñ ko liggéey soo ñaanee visa dafa yomb dégg nga soo demee pour nga am kayit dafa yomb mais léegi africains yi dañ fa bëri te lañ bëggoon li ci ëpp am nañ ko léegi su boobaa seen programme bu njëkk dafay jeex beneen programme mooy taxaw képp ku ñu amul ci yow intérêt rek pour ñu may la dafay jafe beneen bi mooy àdduna bi dafa am crise léegi léegi ba nga xam ne fi nekk nii nit dana am kayit sax di renouveler ñu téye kayitam te léegi commencé nañ léegi di seet nu ñuy def ba delloo nit ñu ñuul ñi kon waxuma nag ki am kayit mooy am problème rawatina ki amagul kayit léegi nag pour am kayit ak ñàkk am kayit dafay aju ci yu bëree bëri ah, am na koo xam ne li tax mu génn réew mi tukki gàllankoor bu ko rab teg la waaw wërsëgam mu ci réew mi waaye nag jinne bi xam na ne bu génnee mbiram di dox mu ëlëmal ko def ci xel mi tukki mu tukki su ko defee mu yàq avenir am yëpp ci côté ci côté wéetaayu tukki bi ndax am na koo xam ne il faut mu génn famille seytaane man ci moom dara am na koo xam ne dañ koy naawatal mu tukki xamul ne dañ ko naawtal daa foog ne rek dafa tukki fekk bi muy dem fii mbiram a ngi dox ñu dóor ko benn liggéey mu dem tukki fekk ndax saay jaxase nañ tukki bi avenir am yàq nañ tukkiam kooku nag bu demee ñaar ñii ma la wax bu ñu demee pour ñu am këyit mën na leen jafe bu ñu amee këyit ubbeeku mën na leen jafe ndax seen wërsëg dañ ko bàyyi gannaaw mm-hmm. parce que dafa am ñoo xam ne seen wërsëg dafa toog mm-hmm. am na koo xam ne nag dégg nga warta tukki moom mm-hmm. ndax nature am dafa toog léegi nag naawtaluñ ko rab def ko dara waaye nag mu gis moromam bu tukki mbir yi neex rek mu yàkkamti dem te fekk wërsëgam moo jotul waaye firam fii la mbiram gën a neex léegi nag kooku tamit bu demee comme wërsëgam newu ci tukki il faut mu seet sëriñ boo xam ne dafa xam wàllu biddiw mu wax ne ko da ngaa juum sa wërsëg newu ci biti am na koo xam ne it dafa dem France fekk wërsëgam Angleterre la ne bëri na ñoo xam ne ñu ngi nekk bitim réew am problème mu kayit léegi nag euh, ci réew mañ ne ooma oh, ma ne leen bàyyi leen réew moom ngeen dem beneen réew dañuy dem rek am kayit fekk réew mañ dem du seen du seen réew lépp luñ fay lijjanti ci wàllu papier dafay jafe yooyu dafay am am na koo xam ne nag wërsëgam dem ak a ñëw la moom mu dem toog foo xam ne day ñaan kayit te su fekkee sa wërsëg dem ak ñëw la nga dem ci réew. Euh, boo fa toogee un mois léegi biddiw bi léegi gaaf gi dugg na installé wu na miitu wu na il faut nga toj tel gaaf gi pour mën faa dee nga mën a génnaat looloo tax nag ñii seen waay juri gaañu ñi seen jabari am problème ñii nangam mais duñ mën a ñëw am na ñoo xam ne seen gàllankoor ci bitim réew raba leen yóbbu danañ am këyit waaye ne duñu am liggéey te ñu ngi bitim réew danañ am këyit mais duñu am xaalis loolu tamit gàllankoor bu rëy la rab dana ko def cet dana ko def liggéey dana ko def biddiw ba am gaaf dana ko def am na koo xam ne mu ngi bitim réew mën naa am këyit waaye soxna su am day tas te fekk jinne moo ko def loolu du am avenir kër daal dana am avenir tukki am avenir u këyit am avenir liggéey mais lu mu am day yàqu day yàqu waaye foofu la yàqoo am na koo xam ne li muy am du yàqoo foofu fii la yàqoo am na koo xam ne lu mu am dana ci dimbale ay mbokkam waaye nag dégg nga bu demee ba amatut dañ koy jàmm wala ay mbokkam yi muy dimbale ñoo koy liggéey ba yàqu ko am na koo xam ne nag mu ngi bitim réew mu ngi am mais problème bi mooy xamu ne alalam li koy téye mooy ñaan ndax daf du alal yépp na moom la nature du téye dafa am wërsëg yoo xam ne da nga koy téye comme ni nga téye jabar joo bëgg te bëggul la dafa am alal yoo xam ne yaa ngi ko yor mais moom bëggul bëggut ak toog ak yow soo xamul nag yow ci seen genre nit nga am nga bokk ak sa relation ak wàllu am-am da am problème mm-hmm. am na koo xam ne nag mën na am waaye nag toujours xaritam yi ñoom ñoo koy tiriyan am amam léegi nag su boobaa wor dafa am problème wor loolu dafay am ci ñi nekk bitim réew bëri ci loolu nag am na ñoo xam ne seen njaboot seen jabar moo leen di trahir moo leen di wor mooy see ñoom ab diir si ñeen ñoom ñoo bokk alal tapaas la yóbbu la yóbbu la ci tribunal fexe ba yàq sa kayit wala ñu tëjlu la loolu dafa bëri bitim réew loolu ñu ngi ciy dimbale ñu bëree bëri bëri am na ñoo xam ne ñu ngi bitim réew ñu ngi am xaalis mais foo leen ñu ngi feebar foo leen fekk ñu ngi naqar li leen koy def benn rab la moo leen ko def wala dañ leen sànni kott boo xam ne xam na kott yi gën a bon mooy kott boo xam ne du la teg feebar bu ñuy feebar boo xam ne feebar bu ñuy gis waaye feebaru naqar la teg feebaru naqaru xel ngay am salaire di mën a fay luyaas di mën a dund waaye foo toll sa xol mu ngi tànn foo toll ñi ngay jëf lanteek ñi ngay won njekk lu bon lañ lay wan loolu dafa bëri bitim réew maanaam ñi ne bitim réew actuellement dañ mel ne ñu ne ci kaso kaso nag ñi ci nekk kii dañ naan chambre bi moo gën a métti chambre bi mais ñoom ñëpp ñoo méttile ndax li gën a métti mooy nekk nekkoo sa réew di fa utee di dajeek ñoo xam ne waa réew moom la buñ dajee yow di la xool bët di la wane ne dëkkoo fi racisme taxaw lépp taxaw su fekkee ne nit ku amul ñaan pour yàlla tàggatal ko tubaab bi day sonn léegi beneen poolem bi ci am mooy te ñu ngi ciy dimbale ñu bëri mooy ñi nga xam ne dañu am jabari tubaab si yi ne nga xam ne dafa am jabari tubaab en général dafay neex ab diir rek benn sénégalais yàqal la ko wala benn seen biddiw yi dëppoogut pour sëy seen diire dund su ko defee da am problème da ngeen di tas tubaab bi indi la problème lam la mënaloon dootu la mënati mën na la sax yàq moom tubaab bi te li ci gën a yéeme mooy njaboot gi ngeen di am du am avenir njabootu bitim réew actuellement amul avenir doom yi duñ màgg yërëm la fan yii rek maa ngi ko wax benn xarit ma ne ni ma bu ma gisee bu ngeen ma nettalee seen diggante seen jabar yi bu tasee ñaari fan yor xale yi ñetti fan kii yor xale yi toppatoo gi ngeen di def même Afrique loolu daf fi mais li ma jaaxal mooy pourquoi xale yi buñ màggee duñ leen yërëm loolu beneen problème la imagine la ko am jabar bitim réew ay doomam màgg yërëmuñ ko mu dem ba mën a tut kooku fan la jëm ko defee bitim réew dafa bëri problème yoo xam ne ñii dañuy nekk ci kaso yàgg fa lool lu duñu am lu ñu fay awka yàlla boole ma ak ñoom ñii si bëri sax du ma leen jox dara dégg nga dafa am fu may dugg seen tur rek am lu ma leen fa jox si turu yàlla ñu liggéey ko génn loolu dafay am ci lu bëree bëri ñi nekk tribunal dégg nga du ñu am doole dee nga ñu dimbale leen ci ñaan tàggata leen ñi leen wala gisee ba bu ñu leen gisee dañu am xolu yërmande wala seen tur bu tapé bu ñëwee seen dossier bu ñëwee seen table dégg nga dafa am xolu yërmande ci ñoom moo xam tàggat lañ leen di def wala moo xam jinne lañ leen di booleek ñoom ñi leen war a gisee yu bari daal ñu ngi koy jëflante ci bitim réew yoo xam ne du suñ man-man waaye yàlla rek moo ñuy dimbale yàlla moo ñu sosalaal yàlla moo ñu ci mu mel ne ay preuve à la digganteem ak waa diaspora bi ñu ñëw nag ci réew mi jeunes yu bari bëgg nañoo tukki su ma la déggee sa biir waxtaan mu mel ne tukki moom bala nga koy def koy xool xoolaat ko xool fa nga jëm mhm. xool ambassade bi ngay dem est-ce que boo demee dinañ la may visa wala lu ñu surtout nag dëkk ba nga jëm moom mhm. waaw su fekkee mën ngaa tukki mhm. nga dem su fekkee fii la sa wërsëg nekk it nga toog mu mel daal boo tukki da ko war xool parce que nit ñi ñetti nit moo dafa am nit koo xam ne wërsëgam ci suuf si mu juddoo réew mi mu nekk fa la ko yàlla programmé kooku bu tukkee du am lenn rek moo tax mu mën a tukki am am na ñoo xam ne ñu ngi nekk biti réew dañ may dañ may oone ma man am naa kayit waaye aw ma mu kayit awma ma mu liggéey waaye xam nga lan laa am poolem mooy salaire bu baax ci benn niveau laa taxaw li may fayeeku ci fay lu yaas la yam ak dund wala yónnee dépasse xam nga kooku mën na dem ba retraite du am dara du taxawal dara ci réew mi te moodu moodu yu bëri retraite ñëpp si alko nañ ci réew mi dañuy taxawaalu te fekk seen mbokk yi ñu doon dimbali dootuñu leen dimbalati yu mel noonu ñii dama leen di wax ñëpp si leen ñu d'accord ñëpp si jël risque bu ñëwee duñ ko réccu ñii na dañ dut óolu li ma leen di proposé mooy taccal seen gaaf bi diw seen wërsëg mën a ëlbatiku ñu mën ko gis foofu yombul nag waaye liggéey bi yombul waaye ñi wóolu loolu laan tegal ñi wóolu dama naan ñif ñu am nañu def ci rek yàlla ubbi la kon dafa am koo xam ne wërsëgam ci toog la ne am koo xam ne wërsëgam bu toogee ci réew mi doo am te bëri na ñu ne ci réew dañu war a tukki waaye nag problème mooy adduna bi ni mu amee cinq continent continent bu nekk am ay réew yu ne ci biiram noonu la amee nit ku nekk sa wërsëg ci wàllu tukki ban gox la nekk ndax ci penku bi la ne wala ci xarfu wala ci ndeyjo wala ci càmmuñ léegi ne su fekkee ne nit ki xamul loolu mën na de wërsëg mën naa ne ci tukki mën nga dem sëriñ mooy la sa wërsëg ci la ne mais fa nga war a dem fa sa wërsëg ne ci biir réew yi nga war a dem demoo foofu su ko defee bunt boo fëgg day ubb sa wërsëg day faral di tag nga xam ne bu doon 5000 francs mooy sa wërsëg fukki dërëm ngay jot li nga war a lekk pour dund am na ñoo xam ne duñ dañuy tëju ba nga xam ne ci mbedd yi la ñuy fanaan du am fuñ fanaan te loolu yëpp li ko waral mooy dem foo warta dem wala ñu sànni la liggéey bu bon wala jinne fëkk la yóbbu la nga tukki te waroo tukki dégg wala gàllankooru cet dal la léegi ne su boobaa ki warta tukki moom dafa dafa war a ki war tukki nii bu ñëwee na dama bëgg a tukki damay seen ndax war naa tukkim déet d'abord su waree tukki mën a ko waaw foo bëgg tukki mën a baraw sànga mën a ko du foofu su insisté na mën a ko léegi nañ seet nooy def ba am nañ seet ñaan yi ngay def parce que dana am koo xam ne dafay bëgg réew sàngam da koy bëgg ci xolam su insisté nag ngeen def ñaan pour yàlla may ko visa léegi nag problème boobu day am bés bi ngay ñaani visa bës bi ngay déposé sa kayit yooyu yëpp dañ ko reseet du bës bu la neex rek nga jóg am na bés yoo xam boo si jógee loo yot doo si jot ci bés boobu am na fu weer yu toll boo si jógee loo yot doo ko jot te loolu ci tukki la ak ci lu dul tukki ndax ñeent dañ koy faral di xool booy sanc kër am na jour yoo xam ne boo ko sancee kër at moomu doo ko fekkee balaa at mi jeex nga dee wala loo amoon dana yàqu am na jour yoo xam ne boo commencé tabax noonu oto velo loo mën di sanc noonu même yére sax am na yore xam ne boo ko daloo da nga accident balaa yére bi di rab danga am problème mu feebar balaa yére bi di ràpp jabar jour bi ngay takk jabar am na sëy boo xam ne bu ñu ko takkee jour jour bii balaa an mi dee a jeex yéen ñaar kenn dee wala yéen ñaar kenn feebar feebar boo xam ne mooy moo ko yóbbu giiri dundam yëpp ci ay jafe-jafe déedéet lépp lu nit dugg da koy seet jaww jii ñu ne dañ koo programme comme ni nga xamee ne sa site bi noonu ko programmé tey lii ngay dugal suba li ngay dugal suba asamaan si ñu toll dafa am malaaka yu monte waxtu wu nekk dafa am malaaka yoo xam ne waxtu yu ñu monte bàyyira lañ ciy ñaan bàyyira lañ ci wut am na yoo xam ne waxtu yu ñu monte musuwaay lañ ciy wut musuwaay lañ ciy ñaan moo soo xamut loolu xam heure boo war a jóg xam ki ngay jëflanteeg dégg nga su ko defee maanaam pour mbir mi yomb dafay jafe sooy jóg rek heure bu la neex nga jóg doo am lu la neex loolu dafa am télé bi bu fekkee tele bi dafa am programme tey émission euh, xalimba bu ñaw la ci heure bii niin yow nga bëgg a jàpp tele bi pour déglu musique boo ko jàppee doo fekk musique léegi nag dafa am malaaka yoo xam ne bu ñu montee ci wàllu musluwaay lañ war a ñaan heure boobu ci wàllu luy sécurité la nga war a uti heure boobu mais su fekkee ne da ngay uti wërsëg ci heure boo xam ne musuwaay lañ ci wut du dox bu fekkee da ngay uti tukki ci heure boo xam ne duñ ci ut tukki du dox loolu dafa bëri ci ñuy dem ci tukki waaye moo tax tey actuellement euh, ñi bëgg a tukki ñëpp balaa ñu jublu ci tukki buñ koy bëgg rek dañ may oo ñëw ñu toog ñu ñu xool nit ki d'abord avenir am ak dundam yëpp ñu xool ko xool mbira wërsëgam mbiru bayraam mbiru léppam mbiru samp këramam ndax ñii ñi dañu fa ne wërsëg xaalis rek la xaalis lu tuuti la ci wërsëg ne dana am jabar di faraatu dépasse sax di gën a dund ko am milliard te borom alal yi actuellement koo ci gis da ko ñëwee par këram gu rafet otom bu rafet waaye su la waxoon li muy dund ci këram diggante mook jabaram ak diggante moom ay mbokkam ak diggante moom ay doomam surtout nag actuellement doomi borom alal yi ñi ci yàqu dafa bëri trop trop trop ñi nga xamee ne seen woy ju day liggéey ba pare ñoom ñu ko yàq dafa bëri torop ci tux mi ci doregawu ci lépp ci lu bon lu ne ñu ngi koy def nga xam ne seen waajur yi dafay am lépp lu mu war a defal njabootam def na ko mais amul njaboot bi mu bëgg te loolu dafa bëri actuellement ci réew hmm. ci sëy hmm. torop. Hmm. moo liggéey la wala loolu. wala da takk koo xamante ni bi ñu koy takk da dem ci sëriñ am loo def ci moom léegi ëllëg ci biir bu loolu tasee. affaire yi waaw sëy dañuy wax ne bu ko gàllaaj takkee gàllaaj dana ko tas wala bu ko gàllaaj takkee bu ngeen amee doom deret jooju day toj liggéey bi dañ koy faral di wax mais ça dépend ci gàllaaj bi ko takk waaw ndax am na ñaan boo xam ne turi yàlla boo xam ne bu buñ la ko defalee ñaan ci sëy kooku dara mënu ko toj mais nag bu dee gàllaaj gu ñuul moo ko takk gàllaaj gu ñuul ni muy gaawee noonu lay gaawee yàqu muy benn beneen bi tamit mooy euh, nit ñi bu njëkk ba niñ daan séyee yar bi ñu amoon ci séy ak niñ leen jàngalewoon séy léegi xale yi léegi jàngalewuñ leen noonu séy loolu yi faute bi parent yi la parce que da ngay séy si li nit war li nit daan toog ci séy yàgg fa lool ndax muñam ak xam ni ñuy séyee yow xamoo ko xale bu góor bi la takkit ci école bi moom ba mu juddoo ba léegi mu ngi ci école bi école bi jàngalu ko séy école bi ko koy jàngal tubaab la tubaab séyam ak nit ku ñuul bokkuñ muy benn yéen ñaar ngeen bëggante lool mais mënu leen a sëyi du tax mënu leen a sëyi ngeen bokk leen jikko du tax bokk leen jikko bokk leen nature xam ngeen ne safara fu ko ndox fekk pour ñoom ñaar ñu ànd jëriñ duy bëri du dun nga bëgg a tàngal ndox te da koy siifur du dëgg léegi nag bu fekkee nit safara la kii ndox la ñu tasee bëggante en tant que bët xool yaramu nit ki bëgg ko ngeen bëggante ci loolu bu sëy bi taxawee ngeen mel ni du yéen ñaar yéen a bëggantoon parce que seen nature yi andul te sëy dañ koy xool ci yu bëri yu bëri day tas sëy yéen ñaar da ngeen bëggante mais su fekkee ne seen wërsëg àndul ñàkk wërsëg day tas sëy dugg ci bi naqadi loolu man leen lu ngeen yot du ko jot nga dem cérémonie ànd leen bokk leen wërsëg nga tas loolu day am ñàkk doom day tas sëy eh, mën nga sëy fekk waajur ku góor ki bëgguñ la loolu day tas sëy man nga sëyi fekk bu boo sëyee ku góor boo demee ci kër gu góor ki sëyi doo jubóog famille ku góor ki loolu mën na ta sëyi kon sëyi dangay xool ndax seen wërsëg ànd nañ ndax njaboot am na ci ndax da nga jubóog ku góor ki dégg nga ndax sëy bi danaa mujj mujj gi fii lañ koy seet ci wërsëg bi wërsëgu nit ki ak dundam dégg nga ak lim am ndax doo ko yàq yow ko jigéen ki wala danga ko yàq loolu dañ koy seet ak mbëggeel gi mbëggeel guy sax la wala mbëggeelu ngelaw la mooy mbëggeel goo xam ne ñaari at ñetti at mu jeex loolu yëpp bu nit ki ñëwee dañ koy seet te et puis tamit ki ngay seeyeg ndax am na koo xam ne boo ñëwee ñu lay seetal ndax ngay seeyeg moom dañ lay seetal ndax ki ñaar ñi seey ki ngay seeyeg muy jigéen bi ndax dafay njaalo nature am njaalo ka la walla déet parce que am na koo xam ne li tax muy fo mooy jëkkëram mën a ko jox satisfaire am na koo xam ne jëkkëram mën na ko satisfaire am na lu mu ko dundalee waaye nature am njaalokat la il faut ñu dindi loolu soo ko bëggee takk léegi nag dana am ko fase jabaram ndax dafay dafay fo fekk li tax muy fo nature am la du bonam li tax muy fo dañ koo liggéey extra léegi nag am na koo xam da nga koo takk fekk am na ku ku la jiit ci moom ku mu bëggante woon koo xam ne def na ci moom galaaj boo xam ne bu sëyeegi yow du tere dana kon ne di fo ak moom léegi yooyu yëpp su fekkee ne yow amoo sëriñ bu la détaillé yooyu mën ngaa dugg ci sëy boo watu dugg mën ngaa dugg ci seen damit sëriñ bi wax la lépp mu baax mu ñàkk laa jox jour jour ba yàq liñ la waxoon ci seet bi yëpp nga dugg ci sëy bi naa waxoon nañ baax na fekk jour bi nga takk sëy bi jour boobu moo baaxul loolu yëpp dafay am léegi nag su ko defee loolu dafa bëri ci réew beneen bi nag mooy jinne yu bëri dañuy wàcc ci réew mi yoo xam ne nekkuñ foon looloo tax léegi saay-saay gi bëri agresseurs yi bëri bandi yi bëri cagatu yu bëri njaaloo yu bari lépp lu bon loo xam ne dañ ko daan dégg day def bari ci réew mi parce que dafa am jinne yoo xam ne loolu la leen iblis sant te dañoo wàcc ci réew mi doon nag loolu dafay waral sëy yu bëri dafay tas mbëggeel yi du ànd ak du ànd ak jikko yi du ànd ak euh, ñaar ñu bëggante te duñ mën a déggoo dafay bari léegi loolu nag li ko waral mooy ñàkk am wéeduwaay ku amul wéeduwaay da ngay nax da ngay neex ba maax suuf sax bu sudantee dégg naa ñu dañ koo jël. Mhm. ñu ñëw ci ki xamante ni par exemple day ubbi place mhm. ubbi na place bi mais bi mu war a doxewul noonu. Mhm. est tey bu la seetsee mun nga ko dimbali si côté Bayre ba place am di waaw parce que place li koy teree dox benn jinne dëkk fa wala ki fa jugee balaa ngay ñëw nga xam ne moo newoon ci place bu fekkee dafa am ko la jiitu. xam nga léeg-léeg place yu bari dañ ko yàq. waaw da ngay am mu dem ci sëriñ mu defal gàllaaj mu sànni ko ci place ba place yàq barab bi suuf si kooku nag dafay daanu su daanoo nga ñëw tëb dugg te xooloo ko da ngay daanu ndax place bi lañ yàq wërsëg du ñëw ci place bi beneen bi nag soo utee musuwaay def ko ci place bi te xamoo ne foofu dañ ko yàq musuwaay bi nga ut pour après liggéey yi ñëw après musuwaay bi la mais tojoo li ne ci place bi su boobaa day am problème su fekkee ne place bi jinn dëkkuwaay jinn la te jinne yi yow jubóowuñ ak yow walla jinne yi jinne seytaan lañ te yow jullit nga da ngay sellal sa place bi du dox su fekkee ne tamit niti guddi dafay faral di romb ndax guddi gu nekk niti guddi yi dañuy dox su fekkee dafay faral di romb ci sa place wala mu nekk yoonam su fekkee da nga dugg ci place bi te set mën na laa sànni ngelaw mu lay mu lay gàllankoor mën na la gàllankooree feebar mën na la gàllankoor boo xëy si tayal mën na la gàllankoor boo nee ci place bi nelaw mën na la gàllankoor bi loo loo waxante du dox dafa bëri yum lay gàllankoor léegi nag soo tëbee rek gis place bi naay nii ci zaahir nga dugg ci place bi mën ngaa dugg fekk affaire bi dox dégg ñëpp di doxle fekk doxlaw li koy waral nag dafa bëri moo tax booy dem ci place da ngay seet place bi seet yow mi nga xamee ne yow ndax juboo nga ak barab bi dégg nga seet sa diggante nit ñi ci wàllu cet diw am na place dégg nga te et am na gàllaaj boo xam ne ñëpp xamee nañ ma ko rawatina ci bitim réew maanaam gàllaaj boo xam ne gàllaaj cal la mais gàllaaj bi boo ko amee nit ñi feeg yaa ñu ngi wax ci yow sa mbir di yëkkati ko te am nañu ko te am nañu ko feeg ñi ñaa ngi wax ci yow ngay gën a kawe te am nañu ko am ci réew mi waaw loolu mooy gàllaaju ci gàllaaju cet dëgg-dëgg nit ñi su ñuy wax ci yow sa mbir dafa war a yëkkati ko ndax nit ñi dañ wax gi ñuy wax ci yow dañ lay publicité mais su fekkee su nit waxee ci yow rek mu nekk tooke ci yow danga nga amul wéeruwaay dëgg moo ko waral mais soo amee wéeruwaay dëgg cet dafa dafay baax ci yow waaw. te ñu nga mhm. ñooy ànd. waaw bayra ak kaaraange ñooy ànd mais bayra dafa am ñetti bayra yu am dafa am koo xam ne moom amut bayra dégg nga bi mu juddoo ba léegi groupe fu mu nekk mbooloo mu mu ne. bu ñuy tudd mën nañ tudd ñëpp mais dañ koy fàtte am na koo xam ne amul dara ci bayra am na koo xam ne am na xaaju bayra waaw maanaam fu ne buñ leen tudd duñ ko njëkkee waaye danañ ko tuddaale am na koo xam ne fu mu ne dafay dafay dafay dafay jiite même bu ñaan lu dafay jiite li koy sabab nag biddiw dana ko sabab waaye sëy yi tamit danañ ko sëyal nit nga xam ne mbooloo mooy ne sa morom yi fi mu ne bu ñu naan ñoom diw la ñuy wax ñoom diw bu buñ ne ñoom diw yow la ñu tudd fekk dafa am bayre boo xam ne da nga koy doxaale sa yaay ko liggéey wala sa biddiw mais euh, ku mën a doon ci ñett yi boo ñëwee ci ñun dañ la xamal yaay kan bayre bi nga bëgg yow sa bopp dañ la xamal ndax man ko am wala mën nga am bu ko ëpp wala ban xeetu bayre nga mën a am mu jëriñ la léegi nag su ko defee bayre boobu nag mën na laaj kaaraange mën na ko bañ a laaj ndax su fekkee sa nature danga nga am nature sa nature dafa nekk nature boo xam ne borom bayre nga yàlla dafay mooñaale sa nature kaaraange bayra léegi nag su ko laajul nag eh, ñu defal su ko laajee ñu defal la ko mais su ko laajul ñu jàllale ci leneen mu gën a yomb. Hmm. docteur Cheikh Ousmane Mbow ngi noonu mu ngi fii ci Parcelles Assainies plus particulièrement unité 15 ci dépôt gaz bi rek incha allahu rabbi boo ko fi seet seet ci kàttanu yàlla bépp jàngoro boo am wala bépp tolof tolof boo am boo ko seet seet ci kàttanu yàlla numéro yooyu di daw suuf rek boo ko ci woowee incha allahu rabbi sa sëñ bi ku ne waaw maanaam ñi nga xam ne ñooy reyaate euh, nga xam ne métti mu metti la. Mhm. ndax lu tam metti mooy dangay rey nit après nga dugg ci àll bi di làqatu. ñu la jàppee nga tëj ko ñu tëj la. te boo dee mu gën a métti. léegi nag xam nga. Euh, solution bi sax du tëj nit ki solution bi mooy yow mi nga xam ne yaay liggéey ci ci moom mooy agressé yow bu xaalis rek moo la ci dugal bu dee xaalis rek ci dugal ñu mel ni man mën nañ leen dimbale sa wërsëg ko nga mën a amee am bu gën a sedd boobu bu dee nag dañ la caa liggéey ñu dindi ko bu dee nag sa ndey moo ko liggéey ñu dindi ko ñett yooyu rek moo koy waral su ko defee nag. Euh, bu fekkee nit ki dafa am natt njiitam dafa am nattu pour utal ko solution te ñu bëri maanaam ki jiitee réew mi dafa am natt pour utal leen solution ndax benn dañ leen liggéey faaw ñu faaw ñu dugg ci lu ñu war a dugg wala benn seen yaay moo leen ko moo ko liggéeyal dégg nga su boobaa ñaar yooyu dafay am bañ solution am dafay yomb dafay jafe beneen bi nag président bi su fekkee ne jigurtu réew mi ci wàllu wërsëg wuy dox danay joué tamit ci peuple boobu ba ñu dugg ci lu ñu war a dugg fekk sax du seen jikko waaye dañuy amut pexe loolu dafay am léegi nag moo tax dafay yaatu parent yi am nañ ci responsabilité waaye gouvernement bi am nañ ci responsabilité ndax réew mi buy dox liggéey am ñu bëri ñuy agressé duñu agressé ñu bëri ñuy sàcc duñu sàcc. damaa jàpp mhm. insécurité bi. dañ ko war a yokk. mais mën nañ ko bañ a yokkee ci gendarmerie yi taxaw fu ne. mooy yar say doomi réew. def si ñoom gëm yàlla def si ñoom dëggu suñ xiifee amuñ luñ lekk ñu bañ a sàcc muñ bàyyi ci deew dellu ci loolu mooy insécurité mais tabax téeméeri prison da nga ko feesal parce que élèves yi ne ci école bi yaruñ leen dégg nga yar maam yi yar mi ñu yoroon kilifa diine yi fi ne lañ jàngale nga xam ne ñoom la nit ñu topp jàngaluñ leen li ñuy wax ci école yi léegi nag boo jàngalee nit ki tubaab nga ko jàngal tubaab lay fan film tubaab lay setaan dana da ko loolu mu ngi seen jikko lay yor alors que loolu ni tubaab yi mel ak noonu lay mel taale bu ne sëriñam lay te ñun tubaab yi ñooy suñ sëriñ kon ñoom lañu war a roy ku roy nag juumoo kon loolu rek moo ci ne loolu état bi moo ci war a jóg seet jàngin mi ci école bi seet yaren bi seet lépp xool li arrangé réew mu def ko mais su fekkee ndaw bi dañ koy bàyyi mu fo bu màggee fokkal lay ne mais su fekkee si ndawam lañ koy yar mu am responsabilité du nekk fokkat du mooy yàlla du nàngam kooku du bokk ci ñuy lor société bi te loolu il faut yarin bi ne ci daara yi ñu dugg dugal ko ci école bi ndax nit ki boo xamee te yaruwut day xam nu muy defee lu bon te doo ko mën a gis day day saay saay day xam te loolu moo ne ci réew mi léegi moo tax ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla dund ko fii ñaan yi mag yi ñaan mag yi ñaan yëpp yal yàlla nangu ko waaw ci barke yonent bi kon képp ku nekk ci bitim réew uh-huh. uh, mën nga ñu woo ci whatsapp bi woote bi sax gënul waaye yónnee vocal bi moo gën ndax uh, léeg-léeg nga ooma fekk nit ñaa ngi toog duma mën a wax yow léeg-léeg ñu utee heure te am na ñoo xam ne uh, ñoom fekk waxuñoo yow rek pour ñoom waxuñu dara whatsapp nag li ko tax a jóg mooy pour boo ooyee nii ki jotoo ko nga vocal ko te su ko defee bu paree mu man laa tontu numéro bi 77 la 865 03 03 mooy whatsapp bi képp ku nekk bitim réew ci boobu ngay oote 78 123 23 71 képp ku nekk ci réew mi ci ngay oote su ko defee dañ la jox rendez-vous nga ñëw ñu gisee incha allah bu neexee yàlla ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.